ok ok bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin bi xurmatil basmalati mubaraka yaamaloo xalqu bi laa musharaka di nuyu mbokki réew mi ak bitim réew ci seen chaîne bi tudd Tawhid TV seen mbokkum taalibe leen di nuyu sëñ Xaadim Mbàkke Kamal leen nuyoo fii ci Njaasaan ci kër soxna Astou Kounta ànd eh, sama mbokkum taalibe sama xarit Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim ak Cheikh Abdoul Hakim ak Cheikh Mara Ndiaye borom 313 eh, kon ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di wax rek ne li nga may laaj tey fii ci Njaasaan muy waxtaane lan mooy jokk ak mbokk jokk ak mbokk moo ñu fendi ndax yaakaar naa lislaam sunu boroom moo nu jàngal ak mbokk na innamal muminuuna ixwa maanaam fa aslihu bayna axwaykum kon mbokk a ngoog ba pare mbokk mooy bokk lu nu gëm bokk pas-pas loolu mooy mbokk mbokk deret du mbokk bu doon mbokk deret aboo jahlin sallallahu alayhi wa sallama du am ak moom jafe-jafe waaye bokk pas-pas mooy mbokk gi yàlla bëgg mooy mbokk gi yonent bi bëgg mooy mbokk gi nga xam ne moom lañuy ñuy doxal ba tey kon mbokk ci pas-pas bëgg yàlla ak yonent bi ak alxuraan te loolu dafa riir ci jamono jamono ak mbokk muy bokk yàlla mbokk yonent bi léegi xamatuñ ko ndax baatu tawxiid bi ngeen tuddee seen site bi tele bi baatu tawxiid boobu tawxiid daanaka mooy li nga xam ne mooy dindi lu dul yàlla bàyyi fa yàlla laa ilaha illallahu mooy tawxiid tawxiid boobu moom la ñëpp bokk waaye dem nañ ba léegi ñu ciy seppi ñenn ñi di bàyyi ñenn ñi boo seetloo léegi ñuy dund tawxiid dëgg mooy tasuuf tasuuf am na ñoo xam ne dañuy seppi tasuuf sànni ne bokkul ci tawxiid te tawhid mooy bàyyi lépp waaye tasawuf nag mooy setal ba tax tawhid yàlla man ko téye kon su fekkente ne yàlla dogal na mbokk googu ñu bokk ko jullit ñi di saagaante di waxante lu ñaaw di dëkkalante fu ñaaw kenn xamatul ku la mag kenn xamatul ku la ëpp daraja kenn nangulutul kenn boo demee ci tele yi wala nga dem ci yenn site internet yi da ngay gis ne ay ndaw dañuy jóg di saaga nit diine te ñooñu boo leen laajee kat ci diine lañuy taxaw kon nag foofu ak mbokkoo amu fa te yàlla daf sëñ tubaa daf ñoo wax nañu bu leen noonoo képp koo xam ne gémmiñam day génne laa ilaha illallahu kon bu fekkee ne ku génne laa ilaha illallah sa gémmiñ rek ak doonte yéefar bi yaa ngi xareek moom ba jege ko ba yëkkati jaase bay dekk ci doxam mu ne laa ilaha illallah sa jaase ji araam na ci doxam kon baatub laa ilaha illallah mooy tax ñëpp doon mbokk kon bu ñëpp waxee laa ilaha laa kenn wërta saboote kenn kenn wërta xejj kenn kenn wërta sànni kenn kon nanu ji defaraat jikko yi te xam ne mbokk diine mooy mbokk pas-pas te bokk pas-pas weesuwul yàlla ak yonent bi ak alxuraan kon foofu daal laay wax ci ak mbokk waaw xam nga këri diin niñ ko daan sàmmee xam nga senegal fii ñu ne réew mi benn réew la nit ñi fi ne koo ci topp rek ay mbokk lañ ci wàllu deret fi mu toll nii koo fi topp rek dañuy daal di bokk ci wàllu deret bu mbokku pas-pas ñëwee nag folli mbokku deret mbokku pas-pas day gën a dëgër te ñoom mag ñi xamoon nañ ne yàlla du lu xat te lu xat du yàlla <laughs> yàlla du lu xat te lu xat du yàlla ndem yàlla du lu xat yàlla moomu nga xam ne du lu xat la fexe ba ku ne fam ne nga nekkal fa sa morom looloo tax fii ci Njaasaan ki fi nekkoon nekkal fi sëñ Touba nekkal fi Alaaji Malik Alaaji Malik nekk ko Tiwaawan sëñ Touba nekkal ko Touba te ñoom ñëpp li doon xeex rek mooy dindi jikko ju ñaaw samp lu baax fexe ba leeral dënn yi def ci laa ilaha illallah leerug laa ilaha illallah di jolli ba jikko yëpp rafet kon fu waay nekk rek la fay def lu baax la nga fay def rek da koy defal sa moroom looloo tax ñu àndoon ci xaritoo ci wàllu xol ak ci wàllu gis-gis ndax gis-gis bi benn la muy yàlla gis-gis bi benn la muy alxuraan gis-gis bi benn la muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam looloo waral nag ñoom fu nu ne amuñu ak noonoo noonoo foo fekk nit di ko def nit xamal ne yàlla booleetu leen ndax yàlla ku am yàlla doo noonoo sa morom loolu rek mooy tax ñun ñu ñëw fii tey Cheikh Moustapha Al Karim ñun ñii Cheikh Abdoul Hakim ñun ñi ñëw fi tey ñëwul fi waa Touba yëpp ah fi ñu ñëw it di këru Touba ndax lépp benn la kon nag loolu rek moo tax boo ñëwee Touba fekk leen fa ñoom boo demee Tivaouane fekk leen fa lépp di benn tur yi dëkk yi ñoo ñooy ñoo nuróowut waaye lay la dund ci biir dëkk ya benn rek la muy sunu borom ak bi kon jërëjëf waaw kay alhamdulilah di ñaan yàlla nag tele bi yàlla def mu am tawhid tawhid lu jar a fexe ba ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tawhid rek ko andi ci àdduna <laughs> tawhid waaw laa ilaha illallahu si sa kàddu yooyu kër gi hmm. doomi Cheikh Mamadou Moustapha nekkoon na fi hmm. maam bu yoroon ko loolu mat naa leeral waaw doomi Cheikh Modou Moustapha moom sëñ Touba nekkoon na fii ci kun fii ci kër gi ah Cheikh. soxna su Alaaji Maam Bu mi. Alaaji Maam Bu mi mi soxna su soxna moo ko yoroon kon loolu. kon kon jeex na kon jeex na kon day mel dañoo ñibbi si ñun. waaw fii nu ñëw ñun dañ fee war a ñëw tey boo xoolee salle bi ah, u sëñ Touba rek a fi toog kon loolu day wane ne ñoom lañ doon jëmbat tey meññ na ba tey ñoo ngi koy jariñoo te loolu mooy lu baax ndax lu baax rek moom la mooy wàllante te moom moo jar a wàlle te moo jara a téye lu dul lu baax nag jarut a téye a bàyyi xel kon nag fii ci Njaasaan ñoo ngi ñaan yàlla fekkil ñu déwén soxna Astou Kounta mii nga xam ne moom lañ fi fekk ci suñu teewaay Cheikh Moustapha mii waral ko ñoo ngi ñaan sunu boroom defal ko gudd fan ak wér ba taxawaayu baayam ba ak taxawaayu maamam ya yëpp mu matale ko ci barke Sëñ Touba ndax jikkoom ak meloom moo tax ñu ñëw fi tey ndax loo bokk-bokk fu baax te sa jikko boo ko foofa waaw foo loo bokk-bokk fu baax te sa jikko baaxul boo ko foofa waaye boo dëkkoon fii ba ginnaaw Casamance sa jikko baax yaa ngi dëkk Touba yaa ngi dëkk Ndiassane kon jikko rek mooy boole yëf yi ci gaa yi kon soxna Astou Kounta jikkoom daa baax noo ngi ñaan yàlla sàmm leen taxaw leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw plateforme yëpp ñu def boo defee Tawfekh TV da nga koy gis waaw